Euh, je, je, je voudrais pas trop faire d'amalgame entre la cérémonie d'aujourd'hui euh, donc voilà li li ñuy wax rek mooy ñu bëri seetlu nañ ni ku mel ni neex a dëkkal man neex a dëkkal laa ko parce que nit koo xam ne da ngay dëkk ak moom te bëggul jàmm ci réew mi neex a dëkkal lañ ko yooyee jàpp naa ni état du Sénégal war na jël ay responsabilités mu régler problème mu waajooju de façon définitive parce que nag crédibilité état moo taxaw suñ ko defulee boo ëllëgee nañu xam ne ñun Sénégal ñu ñëpp ci jungle nekk na ku nekk def lu ko neex taxaw ne kenn du ma àtte wala du ma wuyu justice loolu menace la pour état du Sénégal menace la pour citoyen yëpp donc état bi dafa war a jël ay responsabilités Ousmane Sonko dem wuyu ji devant les les tribunaux d' am na lu ñu koy jiiñ loolu c' est strictement privé mais il a à la violence il l' insurrection cela aussi ne doit pas euh, ne, ne, doit être passé sous silence. Il doit répondre de ses actes. Si on le fait pas, le Sénégal devient bu bu bu bu fekkente ni atte wuñ ko ci loolu réew mi daanaka ndand fay-fay lay doon boo xam ne ku neex lu la neex nga def et cela c'est dangereux lu lu dangereux la pour Sénégal te moom ak keneen ku fi mën a ñëw suba ku fi mën a ñëw suba lii buñ ko réglé wul. ah je yaakaar naa ni du doon loo xam ne luy baax ci réew mi la damay faral di joxe kaawu président de la république Abdou Diouf licencié nañ fi ay mu tas ay ay famille mu doon lu metti ci réew mi jamono jooju waaye boobu autorité état moo taxawoon te loolu de dafa taxaw ngir préserver kattanal état ba nga xamante ni mu mën a def liggéeyam normalement te tey yéen gis ngeen ba addunay tukki policiers Sénégal wala leneen yu mel ni ay armée yooyu dootuñu grèvati parce que lan am na lu fi xewoon am nañ président de la république Abdou Diouf nu mu doxe woon ba loolu doot fi amati donc état bi la jël ay responsabilités sinon danger la ñuy nekk ñun ñëpp non ragal ragal nu ci am état mënul ragal état mënul ragal mais ñun dañuy alerter rek dañuy alerter en tant que fonctionnaire en tant que homme politique parce que am na loo xamante ni buñ ko réglé wul mën na topp réew mi bu ëllëgee kenn du reconnaître benn autorité ci dëkk bi te ñun ñi jàng droit ñëpp xam nañ ni état territoire la autorité. ak ak ak population bu ci autorité bi génnee état amato donc état boobu dañ ko war exercer pleinement et sans état d'âme et sans parti pris pour que vraiment koo xamante ni tooñ nga ñu yóbbu fi nga xam ne ni moom la mbax ne doone benn moom mu ne pare na pour dem procès euh, wàllu Adji Sarr tamit maître El Hadji Diouf na pare na pour dem est-ce que yow yaakaar nga ni état Sénégal ak ni dossier bi mel ak coow li ci nekk pare na pour organiser procès ko ñi ñoo xam li ci nekk man xaw ma lu mais li ma leer daal mooy Sénégal képp kuy sénégalais ñu woo la tribunal da nga war a dem ak koo mën doon prix bu mu jar lu mu jar pour loolu am na ko jar mais réew mii du doon sako su golo boo xam ne lu waaye neex def lu la neex nga wax loolu dafa war a arrêté parce que loolu wóorul ci Sénégal donc état bi moom laay wax encore une fois na jël ay responsabilités ñu régler loolu parce que lu ko may nekkatuñ ci état ci jungle lañ nekk lu ko may nekkatuñ ci état ci àll nekk lu waay neex wax lu waay neex def te loolu je pense que du sax ci état